tey bésu dibéer juróom-ñaari fan ci weeru février mi nekk ministère de la santé de l'action sociale jot na résultat examen birologique yii may waaj a lim ci ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom ñett test yi ñu def ñaar téeméer ak fukk ak benn ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci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 fukk ak benn ci Jurbel fukk ci Kaolack juróom-ñeent ci Mbuur juróom-ñett ci Kédougou ak Kër juróom-benn ci Dakar Plateau Louga ak Popenguine juróom ci Mariste ñeent ci Diofior Liberté 6 ak Mariste ak Mékhé ñeent ci Diofior Liberté 6 Linguère ak Mékhé juróom ci mariste ñett ci Diamniadio Guédiawaye Kër Liberté 1 Mermoz Ouest Foire Tivaouane ak Ziguinchor ñaar ci Cité Cyprès ci Koki Foundiougne HLM Khombol Mamel Ngor Wokam Passy Podor Foundiougne Rufisque Tamba Thiadiaye tuba ak Yoff benn ci Almadi ci Bambey Cité Djily Mbaye Fass Delorme Gibraltar HLM Patte d'Oie Kër Mbaye Fall Kolda Koumpentoum Liberté 4 Liberté 5 Nioro Pout Scat Scat Urbam Richard Toll Sakal Saint-Louis Sokone ak Silogne ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaari malade si ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci biir kër yi ak ñi ñeneen ñi nga nekk ñu ngi nekk ci biir hôpitaux yi wéer nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom fukk ak juróom ñett ñoo nekk réanimation juróom ñaari malade ñoo ñàkk seen bakkan ba su démb gaaw juróom benn fan ci weeru février miñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba senegal wëññi na ñaar fukki junni ak juróom ak juróom benn fukk ci nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak ñett ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent wér nañ ci juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeent junni ak juróomi téeméer ak fukk ak juróom-ñett ñi xam ne ñu ngi ci lalu hôpital yi ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi